izul wujudi xaribul wurudi te pourtant nit ñi daan nañ ko defee mais daawul mel ni nga ma seet ba xam nañ essayé poche indi indi indi ma seet seet ba xam pourtant daan nañ ko jàngale mu ne yooyu yépp ci jikko yi mu ne nag de manière générale umuman amrun mbir la moo xam ne azizul wujudi bu néew lu muy am la xaribul wurudi bu néew lu muy rod la lu tuuranke la yattafiqu illa li xawaasil xawaas loolu Seydina Cheikh am ci xeeti teggin ak jikko ñaare xaasi xaas yi rek ñoo koy am min zawi siddiqiyati wal ixlaas ñi dem ba egg ci siddiqiyatu muy maqaama boo xam ne kawe na lool mais frampante ko du pour tey ak ñi am ixlaas wal maarifati ak xam yàlla gu sell wa tawxid ak wéetal yàlla gu sell waaye tawxidul xaas la wax tawxidul xaas tawxidul aam moom ñëpp boo ne xululaahu ahad moom yàgg nga ci tawxidul xaas nag moom moom ma nga ca géej gi maarifa yi di xuus alladina gaa ñi nga xam ne istagraqathum labal na leen rahmatur rahman yërmaandey allah mi yërëm mboole mi def ci àddina wa ammahum te matale leen alfadlu ngëneel minhu jógee ci yàlla ngëneel li wal ihsaanu ak rafetal gi ak may yi wa ida araada an yudhira fadlahu ala abdihi ashalahu li xubbihi wa widdihi mu ne yàlla nag waxtu woo xamee ne bugg naa feeñal ngëneelam ci jaam ci ab ci jaamam yi daf koy def mu mérité sopp yàlla ak safoo yàlla wa jaala fi ixtilaafahu wa maha bi wasfihi awsaafahu dafay def nag waa ji su booba nit nit ñëpp di dajee ci moom ngir ni mel bu ko defee nag nee na melooy jaam bi yàlla daf koy effacé effacé ko meloom ya moom lu bàyyi doon junju inna aradna al amanata ala samawati wal ard bane wa zaluman jahulan moom foofu am na lu mu fa wax ni nit zalum la jahul la mu ne zulum moom tooñ gi mu tooñ mi ngi commencé ci romb ay meloo meloo meloo keneen jahulan mu ne doon la mu doon te xamu ko waaye nag mooy taaw yi li nga xam ne bul wax ne mu ne lii lay firi waaye neel déggee naa ko ci umuman bon wal maarifatu wa tawxiid wal ixlaas ankay wa ida arada an yudhira fadlahu ala abdihi ahlahu li xubbihi wa widdihi wa jacala fihi itilafahu wa maxa bi wasfihi awsaafahu fa asmarat bi kulli jamilin axsaanu mu ne ku yàlla def noonu nag sa mboolee mi banqaas ci maanaa dafay daldi meññet dafay daldi am meññet wa tanawaat bari funuunuhu ba tey fannam ya wa asnaanuhu ak banqaasam ya ku xas mel noonu sa lépp day daldi baax rek maa ngi fàttaliku waajo woon ci bàññu taale bi bàyyi bi woon ci bàññu ci guerre bi lu mu def am xaalis lu mu def am xaalis bu jigi mu ne dafa foog ne xaalis bàññi dafa yàqu te moom yëgu ko nit ñi bugg ko koo yiban ku am dara rek wàccee ko ndax pour mu yàqu ci loxoom fekk yàquwul xaalis ba yàquwul wërsëg waa yaatu woon la wattasafa bi kulli naatin karim wa xuluqin azim mu ne nag buy jaam yeggee foofa bépp melowu tedd daf koy melowoo bépp jikko ju kowee dafay nekk jikkoom mu ne fa subhaana rahimil wadud maa ngi tudd sell ak yàlla mi yërëm bi ndéef yépp ci àlaxira te nga xam ne moom mooy kiy sopp ba ku ko sopp ñu faf la sopp alwaasiil karim wal juud alwaasiil karami wal juud yàlla mi nga xam ne te tabeem dafa yaatu mën a joxe mi tam yaatu lool alladi akrama xalqahu yàlla mi nga xam ne moom moo teral jaamam yi wa wassaa liman shaa risqahu te mu yaatalal ku ko neex wërsëgam yàlla nañu ca boole laa ilaha xayruhu kenn du ilahu ku may moom wala xayra illa xayruhu amul wenn yiw buñ mën a limalu mooy yiwu yàlla la wala muctiya illa huwa amul kenn kuy maye lu mooy moom wala rahima siwaahu amul kenn kuy yërëm ku dul moom wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam foofu la buntu ñaareel bi yem albaabu saalis bismillah mu ne albaabu saalisu chap buntu ñetteel bi nag mi ngi ci bugg a waxtaanee fii ilmihi ci xam-xamu sayyidina cheikh wa karamihi ak tabeem nga wa saxaa'ihi ba tey ak tabeem nga lool karamu ci arab ak saxaawu amul ñaari baat yu bokk firi ci arab fiqhu luga mais nag danañ jege mais daal karam tabe la saxaawu tabe la mais xam nga léeg-léeg nit jox la loo xam ne joxewin ba rek dèjà yow ci la sa xol set moo tax baat yi mën nañ jege te te du boobu cheikh nag boole na yépp wa azimi futuwati yi ak ak maanaam yiwam ga wafaay yi ak matal ga matal kóllëre ak bépp engagement wa xaw fii dana ci waxtaane ragal gi mu ragal yàlla wa uluwi himmat yi ak yitt yitteem ju kawe ja wa waraihi ak sàmm ga mu sàmm wa zuhdi yi ak dëddu gam dëddu àddina zuxruful xayaati dunia wa mawidati yi ak waaraateem wa xurriyati yi ak la nga xam ne dara tënkatu ko mooy gor dëgg ndax gor dëgg duwul koo xam ne dañ ne diwa ko jur diwa ko jur gor la sëñ na cheikh ngor ga muy wax nee na atamanna ala zamani muhaalan an tara muqlataaya talaata xurri maa ngi mébét loo xam ne nee na impossible la mooy ma gis rek benn bés rek ma gis gor ak firi na ko nag ci biir daañ ko mu si fekk ci biir joaan maa nii mais ngor googu mooy ngor rek koo xam ne say xijaab dagana duul yomb wa dilaalatihi ak tegtale ga muy tegtale alallahi ci yàlla wa jamcihi alayhi ak li muy li muy dajale nit ku tasaaroo woon di firfiri bu dajale ko ci yàlla wa sawqihi ak màng ga muy màng al aqwaama nit ñi bi xaalihi ci xaalam rek balaa wax wa maqaalihi ak ci waxam itam ilayhi wa fiihi bu yëngatu ci moom la jëm suy nekkee itam ci biiram la nekk mu ne wa mu ne wa fii salaasa salaasatu fusuulin taa lañ ci war a def moom itam salaasatu fusuulin nee na nag maanaam koo xam ne da ngay màng nit ñi jëme leen ci yàlla te yenn temps yi doo wax sax nit nit lay gis rek fàttaliku yàlla wala nga wax fàttaliku yàlla moo taxoon sëriñ sa ne maanaam nitu yàlla yi yonentu ko wax sax mooy ñi nga xam ne nee na suma waliyu yi mooy ñi nga xam ne ku leen gis rek fàttaliku yàlla iza ru'u zukira allah mu ne faslu bu njëkk bi nag mi ngi koy def ci xam-xamam ak tabeem ak yiwam ak matal kóllëreem mu ne amma ulumuhu zahiratu fa faaza minha bi awfari nafsi xam-xamu zahir bu ñu jàng ci téereeg référence ak wax naag riwaaya ak diraaya nee na kooku moom ba ñuy joxe cër ba gën a mag moom am na ko ci awfaru nafsi wa xaaza min furuiha wa usuliha assahma wa taasib banqaasi xam-xam ak cosaani xam-xam lépp lu ñuy joxe jox nañ ko ca xam nga ci ci miraas am na loo xam ne yaa ko yàlloo am na loo xam ne dañ la koo jox ci romb ngeen ko léegi nag moom Seydina Cheikh xam-xam daal pour gàttal banqaas yi ak dàtt yëpp boole na ko waa raqiyata yéeg na wala bu nekk waa raqa ila kulli makrumatin wa fadilatin bi sahmin musib nee na bépp teraanga ci xam-xam ak ngëneel bu nit di am ngir xam-xam moom daf caa yéeg di la ko yéegal mooy fett goo xam ne bu sànnee rek mu jam moom maanaam lu mu xalaat rek mu jub lu mu àtte rek mu wér wala yutax wala yataxaddasu fi ilmin illa taxaddasa fihi xata yuqaala innahu la yuxsinu gayrahu fànn gu mu waxtaanee rek ci xam-xam daf cay xuus bañ ne kii de lii rek la xam xanaa loolu gis naa ko ci bàyyi ci fànn yu bare yoo xam ne bu mu ci dugg da ngay xam ne xam nga li ñuy wax ne diw connaissance encyclopédique la amee man gis naa ko ci xaw ma luxa xaw ma char xaw ma ëdëb rek di sifa amma ëdëb bi dem boo ci duggee ëdëb bi Mauritaniam ëdëb bi Najdam ëdëb bu Jaziram ëdëb bu Sénégal la gën a xam xaw ma fiq fiqul maliki ak fiqul am firi al quran ak li ci nekk ci ci ay xeetu xam-xam ak ak ak maanaam usulu fiqi ak usulu diin dégg ak ak taarix ak siira ma loo ci déglu rek bàyyi di wax waa ji ko def mu gàmm mu ne kii moom xanaa dafa nekkoon ku nekk sa réaction mu ne kii xanaa moom lu du barke ku nekk fii fii vingtième siècle naka leen njëkkee xanaa xanaa nag kii mooy kële wala kii mooy kii loolu sax wax la moom dégg nga de mu ne buy waxtaan ci xam-xam Seydina Cheikh bu duggee ci xam-xam da nga naan laa yuxsinu gayrahu kii daal nekk xamul lu mooy lii xanaa min naxwin muy grammaire wa fiqhin ak muy fiq wa arud ak xam-xam bi ñuy defaree wayi arab wa gayri dalika ak sax lu dul loolu wa qad shaaraka al ulamaa fi jamii ulumihim az-zaahirati walam yushaarak fi l ulumi batina nee na li ñuy jàng muy xam-xamu zaahir moom daf ca rëj rëj loogu ulama yi bokk koog ñoom buñ jàngale mu jàngale buñ bindee mu bind buñ tontu mu tontu te moom kenn fekk ko ci xam-xamu batin kon nag moo leen raw bal zaada ala alfuqahaa'i ziyaadatan laa yumkinu wasfuha nee na sax même ulama wu zaahir yi bokk ak ñoom seen xam-xam yi moom sax raw raw na leen ci raw goo xam ne moom mënu koo décrire mënu ko was min xallil mushkilaat yi ngir maanaam problème yi ni mu leen di feccee lëj-lëj yi ni mu leen di leeralee wa ma yaaridu min ashubahi al mudilaat ak li nga xam ne mooy gaar borom xam-xam wala kuy jàng ci ay problématique yoo xam ne lënt lënt la yoo xam ne shub shubahu mooy jàmm shubhatu yoo xam ne dafay dafay lëjal nit kama sa taqifu alayhi insha allahu fi ajubatihi inda mahalliha te mu ne loolu da nga ko gisi buñ eggee ci téere bi ci fi ñuy waxee ne laaj naa ko mu tontu ma laajante yooyu tontu yooya da nga ci xamee ne foofu itam dëgg la bokk naa ko la maa waaye itam raw na leen ci ndax danay fecc lëj lëj yoo xam ne xam nga biñ ciy wax toujours ñun wax nañ ko ay yoon boobu rek ba mu koy def boobu siiwagul ci faas mooy bi waa ji duggee ci xamaam public sangu fa ngir yàkkamti fàtte fa urus bu bare ci ñaari ngisee ñëw di ko seet mel ni ko dof kii garde foofu ndeke gis na ko ba denc ko mu ne ko lan la mu ne ko bàyyi ma mu ne ko wax ma li ngay wut mu ne ko bàyyi ma mu ne ko wax ma li ngay wut ba mu wax ko ko mu oo ko ba mu ñëw ci biir mu génne urus wi teg ko waa ji seet dara manqué wu ci benn misxaal waa ji kontaan ba ne ko soo dul nitu aljana jabaram fase na mun léegi nag faas dëkk bu xam-xam la ñu ne ko déet am nga urus wi de waaye sa jabar moom ñàkk nga ko ndax fase buñ ko askanee buñ ko ajee ci loo xam ne luñ luñ réeree la dafay tàbbi da kuy dem aljana xamaguñ ko waa ji nag fàtte urus ba xam naa ngir fa mu teg jabar ja ci ko gis mu jaaxle nag daf ko ne demal xarawi yii na am na fa ku ñuy wax Ahmad Tijaani muy toog ci amut sàngam amut ba toog naa ci dara woon ma fa lu yéeme yéeme yéeme yéeme waaw bu di fa toog demal nga laaj ko dégg naa ko daal muy génn ay dégg ci alxuraan yoo xam ne xëy na mu utal la génn waaye bu dem wax ko seen cheikh simplement mu ne ko day jëlal sa jabar fase wut waa ji aljanna la jëm kay ñi ko daan fiire nag commencé ornement yooyu daw xaat Moulay Souleymane ne ko waxoon nañ ne waa ji affaire mu leew masala mu ñëpp d'accord parce que mu buñ ko taaliqee ci majhul dafay tàbbi mi ngi nii ne tàbbiwul mu ne ko de wooleen ko ngeen laaj ko ñu oo ko ñun yaa wax mu ne waxuma yàlla wax wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna jannata hiya al mawa képp ku taxaw taxawaay sa bakkan woo la ak sa bànneexu bakkan ci lii nga fàttaliku bés bañ ci tax nga bañ ko dem ci li naqari bakkan bi aljana nga jëm te gisuma ci mbindeef yi koo xam ne bëggoo ñaari ngis ngise urus ñoom ñëpp ñu d'accord mu ne moo tax da nga gis yi atte yi muy atte du boobu sax mais yeneen insha allah fi ajubati inda mahalliha wa ma takallama radiyallahu anhu fi masalati fi ilmi zahiri illa xaraja minha li ilmi al axirati boobu itam di beneen particularité nee na même masalam zahir bu si na cheikh di wax itam même bu dee calcul dana ca jaar ba egg ci xam-xamoo ci àllaaxira du wax mukk ci àddina bu mu jokkale wu toog àllaaxira wala aada bu mu jokkale wu toog ibada wala wala wala mbiru a mbiru mbiru nit bu mu yeggalewul ci yàlla waaw toujours pont la bu la yóbbu ci fa nga bëggoon dem mu ne laa siyama tafsir wal xadis rawatina nag buy firi alquran wala buy wax ci xadis nga ne ko lu tax ma li maxtawa alayhi batinuhu min xawfi illahi taala wa muraqabatihi wa adami iltifatihi li saxaarifi dunia loolu nag li tax du fàtte mukk lu jëm ci yàlla ak alaxira nee na mooy dafa am melo yu ko yàlla may mu melowoo ko nee na baatinam biiram dafa ragal yàlla te dafay fuuglu yàlla daayima te itam du du geesu jëm ci taaru addina yii di birix birixi ka annahu yushaahidu al axirata bayna yadayhi boo nekkee sidna cheikh di ko déglu muy wax nga di ko xool muy jëf dafay mel ni moom mi ngi jënoog mbiru àllaaxira bi muy jëflante ak yow fa iqraa'uhu lil ulumi zahirati rajaat kulluha fi lxaqiqati uluman batinatan ba waxtu woo jàng ci moom muy jàngale zahir itam dafay dellu balaa jeex rek mu dugal ko ci xaqiqa ak xam-xamu batin wa kasiran ma yaqulu ma maanaahu mu ne bëri na lu mu daan wax loo xam ne mi ngi mel ni alaalimu ala alxaqiqati man yushakkilu alwaadix wa yuwaddixu almushkil li saati ilmihi wa kasrati fahmihi wa xusni nadarihi wa taxqiqihi nga si naa Cheikh daal wax ne xam-xam borom xam-xam dëgg foog mën jommale ci xam-xam lu leer mu lëndëmal ko ba dootoo koy dégg lu lëndëm mu leeral ko ba nga dégg ko mu ne xam nga li tax lool mooy maanaam xam-xamam day yaatu déggam di dégg gu yaatu ni muy xoolee xam-xam di xool bu yaatu te itam dafa am certitude taxqiq ci xam-xam waaw noonu lay wax noonu la nit war a mel maanaam moom noonu la mel bu ko neexee lu leer mu la mën am na benn waaye ca ca ca ca ca Iraq muy jàngal xale yi muy jàngal xawsa bi ardu mushkila bi ne leen noonu la ñu ne waa mooy du noonu nag indi benn gi ah waa kay mu ne du noonu nag jox leen ko fukki fukki ardu yoo xam ne benn bi ca noonu ñëpp foog nañ ne noonu la mooy leen nii la la pour rek entraîner leen wala leen ne du lu jub nii rek ci xel jub na ci xaqiqa alaalimu ala alxaqiqati man yushkilu aw yushakkilu alwaadix wa yuwaddixu almushkil li saati ilmihi wa kasrati fahmihi wa xusni nadarihi wa taxqiqihi mu ne fa hada alladi yajibu xuduru majlisihi nee na boroom xam-xam ba noonu la wax ne moom moom nga war a teewee jotaayu jàngaleem wal istimaau min garaibihi ak déglu kéemtaani xam-xam yi muy joxe wa fawaidi ilmihi ak njëriñi lam xam kama qaala cheikhu ibnu arafata fi abyaatihi mansuubati lahu mu ne ibnu arafa ci gaa yu mag ñi la bokk nee na wax na ci ay bayti lu niroog loolu ida lam yakun fi majlisi darsi nuqtatun bi taqriri idaahin li mushkili surati wa azwi garibi naqli aw xalli mushkilin aw ishkaal aw ishkaali nabdathu natijatu fikrati fa dax saayahu wandur li nafsika wajtahid wa iyaaka tarkan fa huwa aqbaxu xullati nee na ibnu arafa nee na ci jotaayu jàngale xam-xam bu ci amul nukta nukta mooy mooy loo xam ne boo ko déggee rek sawar maanaam masala moo xamutoon wala njëriñ loo yëgutoon wala lu sori mu jegeel la ko wala lu jege woon mu mu sori ko ba nga mun ko seetlu nuk bu amul naa nukta ah nga xam ne dina leeral lu lëndëmoon lu tumuranke woon mu wax fu mu jógee ba nga xam fu ñu ko jëlee lu lëj mu fecc ko nee na bu amul daal ci dërs fadaa bayil saayahu jëfam ja wandur ta nga seeli naf si ka ñaar sa bopp jàngalekat bu la munta may yooyu daal jéemal a jàngal sa bopp sax moom dana jarul ngay dem seeti dars mu ne wa iyaaka tarkan mais nag maa ngi lay moytandiku loo bàyyi jàng mutlaqan fa wa axbaxu xullatin mooy jikko ji gën a bon moom ko su waaje melu ni njolotoon itam jéemal a raasaat waaye bu tax na nga bàyyi xam ko mu ne wa amma ulumuhu albatinatu alxaqiqiyatu almustamaddatu min alanwaari ilahiyati fa huwa qutbu rahaha wa shamsu duhaha nee na xam-xamam yi nga xam ne xam-xamu baatin la xam-xamu xaqiqa la ñu jëlee ko ci leeru yàlla yi nee na boobu fànn moom Seydina Cheikh mooy pôle ba nga xam ne lu wër moom lay wër te mooy jant njolloor ba yaqulu man samia kalaamahu fiha hada kalaamu man laysa watanuhu illa xayb allah nee na ku dégg cheikh muy wax ci yàlla da nga naan ji wax ji daal borom dëkkul fenn fu may ca xaybu yàlla kii dëkku fi xamu fii xaybu yàlla wa hadi al ulumu nee na xam-xam yi muy askan seydina cheikh mahalluha seen barab alqalbu mooy xolu doomu aadama wa hiya maadinul asrar ne xam-xam yooyu mooy mbellib mbóot yi wa masalihul anwaar te itam nee na mooy fi leer yi jollee di fi fenkee wa lihada la yumkinu taabiru anha wala yaarifu ala xalaawataha illa man ittasafa biha wa daaqaha mu ne moo tax nag xam xaqi xaqaayiq yi nee na kenn mënu koo exprimer leeral ko lu mooy nag koo xam ne da nga ko melloo da nga ko melloo maanaam maanaam daal waaja moo moo mun a wax mbir ma waaye dégg ko nii rek du tax nga mun koo kii xam nga am na lu yàgg ci kaw la parceur yu bëri naan sëriñ bi ci ko si demuñu fa kat dix kilomètres dix sëriñ bi ci Kossy yow demoo ko mi ngi nii boo doxee sax egg su ma ñëw pap ñëpp dañ daan dox bu ñuy dem Kossy sëriñ bi ci Kossy da nga dafa am benn kuy jinne bu mu def ci benn néeg ku mu ko wan rek nee na xam nga ñàkk pexe moo moom pexe la mu ne kon nag ma wa laa yumkinu taabiru anha wala yaarifu xalaawata kenn du xam neexam nga moom xaqiqa illa man ittasafa biha wa zaqaha koo xam da ngaa nekk ni tey xaqiqa mos ko parce que xam nga bu ñu la doon décrire lem lu waa ji mun a mën a bind inna al asala yajaluka tutari mutirab dara lu tax nga xam lu lu lu lu lu lem sax foog nga mos ko rek waaw moo tax léeb yi da ngeen koy la mu saf ko ku ma ca ko xam mooy lii wali falihada radia radia allahu anhu yusiru xubba mawlaahu alazim ala gayrihi wa yuraqibhu wala yanasu bi ahadin nag loolu moo tax sidna cheikh moom lim yëfetal lim tànn li ko gënal mooy sopp boromam bu màgg bi moo ko gënal sopp leneen mbaa keneen moom lay fuuglu nag moom yàlla te du wétli ko kenn bal tajiduhu yafirru ila alxalawaati kathiran loolu moo tax toujours léeg-léeg nga gis mu ne meng ci àll bi mbaa ci baytu xalwa qad taala fikruhu fi maarifatihi taala fankachafat lahu ajaibu l asrar wa tajallat lahu l anwaar mais nag sina cheikh mun na la joxoñal tuuti ci nim gis ne moom la doon def dafa yàgg xaatir ci yàlla yàgg xaatir ci maarifa moo tax na mu ne kéemtaani mbóot yi ko feeñu ak tëjaliyaati leer yi mu am dox bu yàgg boobu moo tax ci yàlla mu ne am na ko wax waxoon ne wa munfaridin billahi haama bi xubbihi bëri na ko wéet ngir yàlla wéet ak yàlla ba mujj gëlëm ngir bëgg yàlla fa laysa lahu unsun bi cheyin siwa rabbi amatul dara lu muy wettali ko lu mooy borom bi subhanahu wa taala tafarrada fi dunia li taati rabbihi addina da nga koy gis waaja moom kenn la ngir topp gu bëgg a topp yàlla te dara du ko ko yàqal fa fa awrasahu ilma alkitaabi bila raybi loolu sa saf mujj xamloo ko ci alquran xam-xam bu wér bu amul sikk wa athara xuballahi fankashafat lahu nee na dafa tànn bëgg yàlla loolu moo tax ajaayibu asraar yi kéemtaani mbóot yi feeñu ko uññeekul ko sawaban ala alxubbi ndax moom lañ ko fayee ci bëgg gi mu bëgg yàlla fa man kaana fi daawa almahabati sadiqan nee na koo xam ne ba nga woote ne bëgg naa yàlla bëgg naa ngir yàlla woote ba dëgg la tajallat lahu l anwaaru min gayri ma xujbi lañ koy xamee mooy leer yi day commencé jolli rek dara dootu la muur fa yartaaxu fi rawdi almaarifi daiman ci jardin yaa moom xam-xam yàlla yee fa lay nekk kontaan fa lool wa lazzatuha ashha min al akli wa shurbi te bànneexu xam-xam xam yàlla moo gën a neex lekk moo gën a neex naan lu plat ba neex neex lu njar la neex neex tuxaatibu l axwaalu min kulli janibin ku mel noonu xaal yépp a koy wax ak moom jóge ci côté bu nekk fa yafhamu anhu bi damir wa bi qalbi lu nekk mu di ko dégg ci biiram ak ci xolam ah mu ne yukaashafu bil asraari min malakutiha su boobaa nag malakoot xam nga asraaru malakoot daf koy uññeekul xam nga Baye wax na man shakka fii daa fa araa wa asmau min xaysu laa yara alfata wa yasmau am na lu mu wax maqaama yu mu wax ne ku weddi li mu wax am na ñaari preuve yu mu lay jox dinay dégg lu kenn dul dégg dinay gis lu kenn dul gis ma nag yéen kay yukaashafu bil asraari min malakoot yaa fa fa yaati alayhi alfaydu min aalamil xaybi mu ne su boobaa nag fayda baa ngi jógee ci aalamul xaybi du jógee ci yi muy gis ila gayri daalika xam ne kii wax na ko ci cheikh wala wax na ko mais cheikh ko moom waxoon naa leen ci commencement ba ne Aliou Harazim fu mu gis tagg buñ tagg keneen rek mu ne cheikh ko moom ndax moo ko yelloo xam nga iqbal way way waykatu maanaam poète pakistanais boobu iqbal ki waaw ki doon théoriser création pakistan te fekkewu ko am na benn waaye bu rafet bu mu ne kii ndeysaan nag mu ne ko jaaro bi jël ko def ko sa baaraam fi la gën a jekk loolu fay am ila gayri dalik mimma qila wala shakka anna saadaati almuttasifina bi ahwali sifaati hum alladina warisu al ambiya xaqiqatan nee na nag yooyu mën naa ci yooyu ba ca kanam mais daal nee na amul werante wala shakka ne sang yi nga xam ne ñoo melloo axwaalu sifaat yooyu xam nga zaatu wax du ca bari mais nag melo yi ak tur yi fa la coow la nekk ak feeñuwaay ak bërëx bërëx ya ak ak sànkoo gindeekoo yëpp mu ne nag foofu ñi mel noonu ñooy ñi nga xam ne warisu doon nañu alambiya yonent yi xaqiqatan ci dëgg dëgg dëgg xam nga wax nañ ne al ulama warasul anbiya yonent ko wax te mooy dëgg mais nag foo ko dégg comme yàlla nee na tilka rusul faddalna baaduhum ala baadi même yonent yi duñ benn catégorie dafa am ñoo xam ne dama leen a gënal ci kaw ñenn ñi kon nag ulama yi buñ leen doon itam mënu ñoo yem moo tax gars yi ne wali yu boo gis rek mi ngi dox ci xadamu ab yonent ma ne kon foog mu am ko dox ci xadamu yonent yàlla Muhammad foofu rek xaatimul wilayatil Muhammad yi jóge bi ahwal sifatihum alladina warithu al anbiya xaqiqatan waqtadaw bihim zahiran wa batinan ñooy ñi roy yonent yi ci li feeñ roy ko ci lu nëbb ci lu feeñ mooy ndigal yi ak tere yi lu nëbb mooy sellal gi ba dem ba jeex ba bàyyi waxoon na ne njistal am nañu ko ragalul ndax nit du njistal ci jëfi keneen te nit dina dem ba dootu gis ne moom mooy jëf fa jamaau bayna alchariati walxaqiqati ala akmali wajhin ñooñu mu ne dañuy mun a boole sharia ak xaqiqa ci kanam gëm gën a wéree kanam gëm gën a wéree bàyyi seedeel na ko waa kanu te ñoom ñoo mujj ñëw kon kay ma gëm ne seedeel na ko waa Sénégal yi ko nangul waaw waaw jamu shariati maa tariqa ila alxaqiqati al ura al wasiqa nen dañ boole sharia ak tariqa ak xaqiqa nee na seen i buum dëgër na mu ne faqad faaqahum sayiduna radiyallahu anhu wa xasala lahu ma xasala lahum fa wa radiyallahu anhu alqudwatu lilmuqtadi walhidayatu lilmuftadi nee na Seydina Cheikh nag ñooñu ma tagg ñëpp Seydina Cheikh mu ne raw na leen ci boobu côté kowe na leen am na ci luñ ci amul am na ci lañ am ak luñ amul mu ne radiyallahu anhu kuy roy moom lañ war a roy kuy jub moom nga war a jéem a imiter li jamcihi bayna lataif al axwal wa saxih al aqwal wal afaal nee na li tax ñu war ko roy mooy xaal xam kenn mënu ko décrire waaye ku nekk ci xaal bu mën noonu rek ku mer xaal la ku kontaan xaal la ku xiif xaal la kuy seetlu xaal la ku gërëm xaal la ba muy egg nag ci xaal yi yu gën a yàlla ye mais xaal yi dafa bari mais moom lataif al axwal xaal yi ci gën a nekk yu yu yu yu mignon ah moom moo ko yore dégg nga wa saxiil aqwaal ak aji wéri wax ya lam yëg amul morom lam wax amul morom wal afaali ak jëf ya lam jëfit amul morom xam nga ba tey lislaam da ngay dalu buñ la koy jàngal dañuy wax lislaam pas-pas la ci xol ak wax ci làmmiñ ak jëf ci cër yi kon nag dig axwaal aqwaal afaal mu ne baatinuhu xaqaayiqu tawxid moom Seydina Cheikh baatinam mooy xaqaayiqu tawxid dëgg-dëggi tawxid moom mooy baatinam moom lay dund wa zahiruhu zuhdun wa tajrid baatin zahiram nag mooy dëddu ci caaxaani àddina ak rafleel boppam walis lu dul bëgg yàlla wa kalaamuhu hidayatun li kulli murid nee na waxam ku bëgg yàlla déglu ko bu waxee rek nga gis sa direction mu nekk sam njub wa amma karamuhu radiyallahu anhu fa min axlaaqihi wa sajaayaahu kasiiru infaaqihi nee na bu dee nag tabe ga générosité am nee na bokk na ci ay jikkoom bëri gum bëri lu muy dundale fi sabilillah waaw lu ñuy joxe lu ñuy waxe parce que dundale du xaalis rek léeg-léeg nit nga jox ko kaddu goo xam ne moo gën àddina li ci biir wa ataayaahu noonu itam lay joxe rubbi ala dalika mundu nashaa ci loolu lañ ko yar ba mu nekkee xale ba ni mu nekk mag nga xam ne éducation moom mënuñ ko sàggane ndax nit man shabba ala shay'in shaba ali kii bi yëngatootul léegi kon mbiram jéy mbiram poos la daal mu ne man shab ma ne kii bi yëngatootul man shabba ala shay'in shaba ali nit lu mu yaroo ba muy xale te changé wul ca lay màgg moo tax boo yaree xale ci lu baax day continuer baax boo yaree ci sàggan dafay sàggan mu ne nag rubbi ala zalik xutbu bii kat gërëmal ay waajuram ndax dañ koo yaree yu baax yii ba muy xale mundu nasha yataqallabu kayfa shaa fu mu nekk rek moom ci jikko yu baax la xam ak wax yu baax yéene yu baax ba xëy nekk li mu nekk kayfa shaa jaala allahu alkarama lahu wasfan tabiiyan yàllaa ko defal tabe ak générosité muy melow melo naturel am wasfan tabiiyan ma mënul mënul denc yonentey maamam nag toog na ci jàkk ji ba mu yàgg mun a bëri dugg këram nit ñu foog ne lu garaaw xew mu dellu si ñu ne ko lan la woon mu ne dama doon joxe alal ju fi ñëwoon ba mu des as ndagit si urus ma fàtte woon koo joxe ma bañ mu fanaan ci kër gi te joxewul kooku mooy maam gis naa ko ci bàyyi ci ñaari mawqif nit war na ko wax ku bëgg yàlla ak yonent ba parce que gis nga benn mawqif bi mooy benn jàmm yàlla dafa ñëw tawat ko soxla fekk bàyyi amul dërëm daf daan toog du am dërëm waaye toog fa toog mu naan mu leen waaye mu leen mu leen yàlla ngi noonu rek maaruful Cheikh Abdallah ministre de la défense Mauritanie ba muy door a am indépendance ñëw nuyu bàyyi jox ko enveloppe bu fees del del ak xaalis man xaw ma ñaata ne mais ba mu ko ko yooree bàyyi laaloo ko daf ñu ko joxal kii ki doon xaar kooku moom tuuti mu am crise cardiaque loolu wóorul sax xam nga barke bàyyi rek moo musal waa ji ndax nam xifee di bëri na waa ji nag moom ki jox xaalis bi rek moom xaw a frustré tuuti daal li mu doon doon taaluwe ndax dafa bëggoon bàyyi laal ko sax ba xam li mu ko jox nee na ma jóg mu jaaxal ma daal waaye mu ne bàyyi waxtaanu sax moom sax te moom kilifa la son excellence mu ne ma dem ëllëg su ma ñëw di tàggoo ànd ak ab étudiant mauritanien boo xam ne cinq mille la am jox ko bàyyi bàyyi mu ne ko marxaban jël cinq mille dugal ci poosam gunge ba mu yegg muy waxtaanal xale bi Maarouf ne ma ne ah j'ai compris nga bàyyi daf maa bëgg a wan ne mbir mi nekkul ci joxe lu bëri wala joxe lu tuuti xam mën naa am cinq kooku cinq mille bi mën naa am moom moo tolloog lu bëri ci ci ministre bi mu ne moom mu daal di kontaan xam ne bàyyi daf koy tarbiya daal waaw nekk fii muy jël di ko neexal ak yooyu kooku bàyyi nee na laa atasannaau li muridin man du ma diplomatie ak suma taalube boo gisee ñi muy waxtaan waxtaan yu neex yooyu ak yi gaa ñu dëgg dañ koy ragal de mu ne kayfa yan yataqallabu kayfa shaa jaala allahu alkarama lahu wasfan tabiyan suma sarafahu sarrafahu fii tasrifan te nee na tabe yàlla daf ko daf dafa xiir Cheikh Tidiane tabe may ko ci ndigal ci muy soppandiku ci tabe nu ko neexee loolu mooy benn bi ci bàyyi benn deuxième bi dragage dafa ñëw indi décompte boo xam ne trois millions la ci jumaa ji waaye amul dërëm séentuwul dërëm dragage toog signal yi toog ak ay gan ak benn gan ci ma ko doon fàttali bët ci dem noonu rek waa Banjul ñëw président de l'assemblée ñëw benn waa Sierra Leone ànd ak ñoom ñëw ñu nuyoo Sierra Leone bi nuyu baay jox ko enveloppe ñu fekk muy trois millions juste mën na ko joxal mu jox dragage alors xam nga kële baay moo ko xettalee woon waaye bii baay lañ xettali c'est comme ça nag sarrafahu fihi tasrifan shar'iyan moo tax nag buy dépensé buy may itam ci biir cadre sharia la waaw du may xëy na certainement ku amul soxla wala ku yàq wala boog lu yéeme mën naa xew ba ci ñu ndaw ñi man am na loo xam ne dinaa leen ko nettali dafa am waa ju ñëw suma soxna bi mu gaañoo dafa am ku ma jaaree ci mbokk bi yaa trois ans ñëw ñu waxtaan mu ne ma yow day miin loo ma ne ko ak yi xam naa la nii mu ne mus naa tase yow ci mbedd kaw la ñaan la xaalis ma ne ko loolu fàtte naa ko mu ne enkañ fàttali ko rek dafa mel ni sax da ma xawoon a jëppi ma ne ko noonu duma may kenn xaalis di ko jëppi mu ne ma man dama naanoon sàngara te màndiwuma li ma am jeex ma sell rek ne sëñ baa ngi nii mu ne ma wax la nga may ma xaalis ma dem mottali naan ba suma xol sedd ma ne ko loolu loo ma ci nekk mu ne ma déglu mu ne mu ne ma depuis dix ans keroog laa mujj naan ma ne ko loolu man du ma ci dara xaalis ba ne xam naa loolu lew la woon aw léegi ma ne kon nag si naa mën naa jox sax ko xaw a kii pour kii ko day fekk moom mu xam ko tasrifan shar'an ila an raqaahu llahu subhanahu marqal kamal mu ne ba yàlla nag yéegi seydina cheikh ci domaine boobu yéeguwaayu mat wa sayarahu mimman la yashhadu fi dhatihi milkan li nafsihi wala maal mu ne nag mu dem ci noonu ci jikko yi ba mujj yàlla mu jël ko daal moo xam ne gisul ne moom moom na dara moom sidna cheikh lim moom gis ne moom na ci dara du alal du dara fa jama allahu lahu bayna alxaalatayni jaman sunan min allahi wa man ahsanu min allahi sunan yàlla nag booleel ko zahir ak batin te di lu ko yàlla defaral te yàlla nee na maa ngi laaj kan moom a gën a mun a defar lu rafet ak lu baax fa kaanat waqaiuhu fi dalika azimatan wa ayaadihi fihi jasimatan nee na mu mujj xew-xew yi xew ci dundam ci domaine u joxe ak maye ak tabe dafa mujj nekk lu rëy wa ayaadihi mi ngi firi xéewalam ya xam nga yëdun boo ko doon jamoo loxo ci arab da ngay wax ay din muy ay yoxo des mains boo jamoo nag jamu jooju jamul jam bi da nga naan ayaadi mais nag bariwul luñ koy def mais ayaadi bi moom yëdu ji firi xéewal la arab di firi ayaadi fii jasima xéewalam yi bari ci ñi koy jël wa afaaluhu ajibatan def na ci jëf yu yéeme yéeme wa maasiruhu garibatan lam ci def ci ay jeexit dafa mujj tumuranke naadiratan di lu ñuy waxtaanee sax mel ni ay ay kii min nawaadiri zaman ci kéem kéem taanu jamono yi ñuy nettali ci seen archive ci la bokk wa ayatan min ayati llahi lati barasa lil iyad ci kéemtaan yàlla yi ngay janoot mu ne mbiru cheikh ci la bokk yuti ataa man laa yaxaafu liftiqaar wala yubaali bi ifratin wala bi iksaar nee na ni muy mayee maye ku ragalu sa ñàkk lay doon te faalewul sax ëppal ci maye ak bëri ci la muy jóor xam nga am na am na délégué bu gaañ yónni woon mu seeti yónent ba xam li mu woote lan la ba mu ñibbi si ne leen ka ma jógee na muy maye niruwul ku ragal a ñàkk musuma gis nee na buur buñ fonkee ni moom su buy wax dañ koy déglu bu picc daroon seen bopp yi du naaw su diglee ñëpp njëkkalante pour def ko waaw daraam du laal suuf yëpp dañ koy barkeloo waaw kooku am na observation ajibatu maatu garibatan nadiratan min nawadiri zaman wa ayatan min ayati illahi lati baraza lil iyad yuti ataa man la yaxaafu liftiqaar wala yubaali bi ifratin wala bi iksaar wa kayfa yubaali man taxalla qalbuhu an il aradi lfaani wa raqiya maqaama al ihsaani wal ihsaan naka lay faalee bëril ci anam ak joxe koo xam ne ne xolam dem na ba fiixal na ko dara lu aju ci mar poñetam àddina marchandise am àddina nekku ci nekkatu ci xolam mu yéeg ci maqaamam def lu rafet ak maqaamam xam yàlla yéegaayu mat wa maratiba fuxul rijaal ba ponkal yi ci góor ñi kuy yi nee na fañ egg yegg na ca alladina taraku nafaisa wal arbaax wahabu nufus wal arwaax nee na am na ci góor yàlla yi ñoo xam ne kawoon nañ mu ne cheikh fekk na leen ñoom lu dara cher cher na fii satu ah par exemple tey bu dee jigéen par exemple bu lam yu xew bees na fii satu la bu dee góor ñi basin yu xew bees na fii satu la bu dee jënd kër oto yi marque yu bees yi na fii satu la ainsi de suite ba ci télévision yi ñuy yàq seen xaalis yi yëpp quoi mu ne nag nafa yi si ñoom dañ koy joxe boole ca sax lu waroon a doon sax bénéfice ñu boole ko ci nee na dañuy maye bay maye seen bakkan ak seen ruux arab noonu na al juudu bi nafsi aqsa gaayatil juudi tabe ba joxe sa bopp mu ne ci la yem fa hum kuramaau alxaliqati wal asxiyaau ala alxaqiqa nee na ñooñu ñoo ñi seen jikko tabe tedd te ñoo ñi tabe dëgg dëgg-dëgg fala fadla illa afdaluhum wala nawala illa nawaluhum seen ngëneel mooy ngëneel seen may mooy may is man is min ayni juud yunfiquun wa biwaabili faydihi yadfaquun nee na parce que ñoom ci jëmmi maanaam ci maanaam ci ci ci ci géeju wala sew ndey tabe bu ñuy mayee ci fa la ñuy jëlee te itam ci waame taw waame ngëneelu yàlla ca la ñuy joxe ñoom bu ñuy joxe laa yarawna lahum milkan wala itaan te bu ñuy joxe du gis ne ñoom moom bay joxe duñ gis ne itam joxe nañ wala tarkan te itam gisuñ ne buñ bàyyee gisuñ ne ñoo bàyyi fa anna yuusafu amruhum wala yuxtaru fi dalika xadruhum naka la ni mun a melaleekoon seen melu dëgg te doo ci juum wala nga jox leen gëdd gëdd giñ dara walakinna la nataaradu li cheyin mimma nara li cheikhina wa ustaadina radiallahu anhu min juziyat alqadaya wa baadi ma shahida lahu min waafir alihsan wal ataaya id almaqsuud dikru alaxbar wa nashru tilka almakarim wal athar nee na nag toujours maa ngi naan gaañi gaañi gaañi mu ne parce que damay wax mel ni may yi ñu xam ne du lu yàlla maye na ñu bëri mais nag Seydina Cheikh wax ma ne moom ñoo ma yem damay tudd ñim nirool pour ñu xam nag li ko distingué loolu mooy jumlo yu rafet yooyu fa dabuhu radiallahu anhu al infaqu fi sabilillah nee na baaxam aadaam mooy lu muy def ci dund la ci dépense daf koy def ngir yàlla fi sabilillah am na aalim bu ne foo dégg sabilullahi rek bu ne am fi sabilillah boo geesoo nit ngay gis man boo bëggee defal allah da nga koy def ci ci jaamam yi moo tax bàyyi ne am na benn xadis boo xam ne ah moom doy na waar mu ne yàlla dafay wax yonent nee na yàlla dina wax jaam bés ba ci ne ko feebar naa seet yow mu ne ko yow rabbul alamin a feebar mu ne waaw su ma jaam sàngam feebaroon na soo ko seeti woon fekk ma fa xiif naa nga bañ na doo ma jox lekk mu ne ko yow rabbul alamin mu ne waaw su ma jaam sàngam xiif na ñaan la lekk bañ boo ko leeloon fekk ko fi man bàyyi nag def conclusion jàngale ne ah waa miskin ngi moom koo xam ne boo ko dàqee mu dem te boo demee bis sañ fekk mu di la atte mu ne kon nag seen na cheikh dafay wax loolu rek waaye taxul mu wax ne mu mu wax lam am yëpp daal wa baadu ma shay min waafir al ihsan wal ata idin maqsudu zikru al axbar wa nashru tilka al makarim wal asar fa dabuhu radiallahu anhu infaqu fi sabilillah wal itaamu li wajhillah ku bëri lu muy togg ay ñam la di ko jox ay nit ngir yàlla yu yufarriqu maalahu fi dalika shadara madara nee na alal jum am ngir yàlla daf koy séddale ko tasaare mel ni kuy sëq di di wesaare fi kulli waqtin min raxain wa shiddatin fi xaalati safarin wa xadar nee na nag amulu ko waxtu su jamono jafee wala mu yomb day joxe buy tukki wala mu nekk ci kër gi day joxe min kulli ma yatanaawaluhu min al muktasabaati min aynin wa ardin wa fawakiha wa xudrin mu ne moom lu mu am rek dana ko dana ko joxe wala dana ci joxe bu dee kay bu dee marchandise bu dee mu ne ay poytéef ay fruits bu dee ay ay ver kii ay légumes bu bu dee même dund këram wala mu utal nit dund pour këram aw silatu rahimin wala mu di ko def ngir jokk ak bokk aw sadaqa wala muy saraxe rek tout simplement wa yaqul di wax lii nag si na cheikh moo wax al maalu maalullah wa innama ana xaasinullahi wa mustaxarun fihi wa mustaxlafun li mu ne mu ne daf naa wax ne alal ji alal yàlla man maay magasinier biñ ko dénk te yàlla moo ma tàggat may def li may def te moo ma fa wuutal mu ne mi ngi junj ba yàlla ne wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii bu ngeen di dee leen dundale ci alal ji leen yàlla def ngeen wuutu ko ci daf leen ko dénk moo tax nag islami yu ne yi ne maanaam ulama yi ne moomeel dëgg-dëgg yàlla ko moom jaam alal ji nga liggéey ba moom ko nga xam ne boo signé mu génn itam fonction sociale rek nga ci am moo tax kenn kenn sañuta am alal lakk ko kenn sañuta am alal def ci lu la neex lu lu baaxul parce que yàlla la ko dénk wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fiihi fii waaw moo tax am na benn xadis boo xam ne nee na doomu aadama du bouger ci kanam yàlla bés benn ci fekk tontuwul laaj yi sa dund bi ci loo ko jeexal sa wér gi ci loo ko jeexal sa alal ji foo ko jëlee ak ci loo ko dépense alal ji rek moo am ñaari laaj foo ko jëlee donc xalaal wala xaraam ak noo ko def parce que boo ko amee itam dund la neex nga def ak ba ca def wali qawlihi alayhi salatu wasalam yadullahi mal a la tugayiduha nafaqatun fahaau leyli wa nahar araaytum ma anfaqa mundu xalaqa alsamawati wal arda fa innahu lam yugid ma fi lam yagid ma fi yadihi wa kana arshuhu ala almaai wa bi yadihi almisanu yaxfidu wa yarfau axrajahu alimam ahmad mu ne ak xadis bi wax ne yàlla loxoom dafa fees dell ak i may te kenn la boo xam ne dépense du tax mu ngiis nee na guddi ma ngay dotti bëccëg ma ngay dotti moom yàlla ay may mu ne gisuloon ba mu yàlla bindee asamaan ak suuf yépp ba tey wàññiwul dara ca lekk ci loxoom te nee na arasham baa ngi nekkoon tiim ndox mi moom mu téel boppam balance yi di yëkkati di daane maanaam daal moo wéetoo imam Bukhari wax na ko imam Muslim wax na ko Turmuzi wax na ko Ibn Maaja wax na ko Abu Hurayra sax moo ko nekk bi mu ne wa min aadatihi radiyallahu anhu wa xususan ma kaana min qabili sadaqat al mubalagatu fi l ixfaai jiddan nee na am na nag jikko aada am saraxe bu nit ñi gis al mubalagatu day daf koy nëbb lool xatta laa yashcura insanun bima huwa yasturu minhu min al ixsan fi umumi awqat nee na ñu bëri dañu nekk moomee duñ yëg ne mi ngi dépensé wa galibi l axyaan li ëpp ci jamono fa ida aata ahadan cheyan la yuctihi bi yadihi innama yaamuru bi dalika wa yursilu bihi wa yuusi l mursala